jàng xul huwallaahu ahad juróomi yoon bu noppee mu jégalu borom bi subhaanahu wa taala lu mu man des na ko musal ci sawara te dana mel ni ku woor diirub jamono bi yépp te des na ko ca bindal tuyaaba jutal ne limu biddiw yépp ak xobi garab yépp ak tuyaaba ju fees diggante asamaan ak suuf te bu dekkee dees na ko booleeg jibril mikail israfil Israël ñu gunge ko tabal ko àjjana sopp ku ci bëgg yeneen leeral da ngay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 150 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi